léeboon lippoon amoon na fi daan am ma nga amewoon ca te jamono yee barab yi daan wax ak nit ñi amoon na fi jigéen ju bon ju nekkoon ak ñeenti doomam ñoo nga dëkkoon ci biir àll ba bàyyu xale ya ma nga dee ba caat ba ñuy woowee Toni juddu yaay ji jàpp ni xale bi dafa ay gaaf mu daldi ko bañ bu mu sànrab bi ba ñëw day woo yi benn benn ñu namp ba mu des toni muy woy naan jamlooro kaay nampa jamlooro siise kaay nampa piraama siise kaay nampa ndaama siise kaay nampa na tooni xaar yàlla yaayam di ko def ay yooni yoon waaye jigéen ju bon ji mësul xam ne yàlla daan na feeñu tooni ci melokaanu daar bu bare meew bu muy yónnee di nampal tooni am bés musiba dal jigéen ci mu jóge ca àll ba di woy woy wa mu daan woowee xale yi ngir nampal leen yem bukki di jaar mu déglu woy wi jàng ko ba mën ko bu baax beneen bés yaayu xale yi dem rëbbi bukki doxe ko ginnaaw roy baatam di woy wëy wi xale yi di génn benn benn bukki di leen lekk ba mu des tooni ba yaay ja jóge àll ba muy wëy kenn wuyuwu ko mu jaaxle lool yàggul dara mu dégg baat bu mu miin di wëy naan ko jamlooro bukki jël na ko biraama siise bukki jël na ko ndaama siise bukki jël na ko ni rekk des ci yaayam yàlla ba mu déggee kàddu yooyu jigéen gi dafa yuuxu yuuxu gu tar réer ci àll bi foofu la léeb doxe tàbbi géej bakken bu ko njëkk foon tàbbi àjjana